góor a naka mu. yaa ngi ko daan gunge rawatina waxtu ak li nga xam moom mooy bés bu di ko ñaanal wér rek comme ni ma yàlla suñu borom may ko wér ba combat bi yàlla may ko ndam di wax moom amul benn mbër bu ko jaaxal ci bëre ak lépp lépp lu mbër yor rek ci wàllum bëre moom la toogaale. mais mu ngi ci kanamu xale boo xamante ni ngi ci yoonu làmb Papa moom daanaan la mi ngi ci yoonu làmb te bëgg na bëgg na bés bi loolu xam naa ne yéen tamit bëgg ngeen ko amul benn lu xaw a soppi ci préparation yi. non xale moom loolu c'est faux la xale boo amee vingt cinq ans mag bu séeréer di liggéey normal am 40 ans moo la mën bu ngeen bëree mu daan la ndax ñun ñii ay boy lañ te dañu ñu ak ñoom Papa di di kontaan ñoom normal ñu ñuy daan. kon nag ay xale ak mag amul ci lan am lu ñu am rek mooy séeréer liggéey déglu conseil yi déglu sa staff soo ko defee suñu na dimbali quoi te ñu ñu ngi te xam Papa Sow xam ne yàlla la am pression. pression bu. non dama lay laaj man damay laaj. non ku bëreeg la de guerre bëreeg ay. ah déedéet nga may ku ay bëreeg ay la de guerre bëreeg ay Modou Lo bëreeg ay Kayre bëreeg ku si de booy la rek comme bëri yëpp. waaye ci loo nekk. wuy ma danse bu bëriwul bëriwul gumba boo koy sarax ki nekk këram rek moo koy moo koy wax li nekk ci sarax bi mais fekk lu nekk ci bi gura la mën a làmb xam ne lii gura la baal ba la suur rek incha allah rabbi